xanaa nga bëri ci biir kër gi. sëñ Kuna waxati na. dees boru na déedéet. ne ko mbay def mu ne ma déedéet. dañuy xaar. Eh, ñu daal di xaar yegsi ci biir Ohio Columbus. ba ñu ak seen ñu def. ñu daal di ñu ndengal ganaar yi. dëgg la wallaahi. soxna yaa ngay ñoŋ ganaar ya. ñu doon ko teg ñu ci kër. Mhm. wutul ñu Airbnb. Airbnb waaye Airbnb. kii moo ñu invité Michel borom baax dëgg. ñu daal di nekk ci jàmm. ak ah. kumpa ki kumpa 17 heures. ataaya jolli mais ndax man damaa nekk Mbambi Loor wala ama bay bi booy wala Fouta Mbambi wóor wala. wala Mauritanie mm-hmm. ma daal di jékki-jékki dibi bi tàjji ma ne du ma ko laal. kumpa gi mu ne laal la. Mm-hmm. mbir mi quelque chose qui tourne dans ma tête. <laughs> waaye xam nga ni borom làmmiñ wu ne bu taxawee. gor su ne gor la. waaye mbay dama ne bakkan daa foor. daa foor te nawle dafa foor. nawle dafa foor nawle dafa foor. xew mi bi Não nëwee ñu organiser nu nag. teg ñu nag ci axe. axe bi gën a metti mooy kenn du dugg kenn du não. mais loolu metti na loolu loolu loolu jëfu président. da ngay tëj sa lan